sey sehilaɓe on jaarama ñoo ngi fii tey ci àll jolof bi fii bu ñu fi ñëwee nag ak kii ñu taxawal ngeen xam ni ci wàllu càmm la ñuy wax dañuy wax ci solo soo xam ne am na ko ci réew mi dañuy wax njëriñ loo xam ne am na ko ci koom réew mi waaye dañuy wax itam ci jafe-jafe yi nga xam ni secteur bi am na ko ci réew mi kii fi nekk mu ngi ànd ak ay ay ay xaram nekk ci àll bi di dox xar yi di fortaatu sonn lool loof gis ngeen leen sama ginnaaw ndax ñax amul lekkuñu ndox jafe na ñii di liggéey bis bu ne suba ngoon guddeeg bëccëg du ñu noppalu waaye lañ ci waroon am lépp amuñu ko ci ndax politique yoo xam ne gouvernement bi amu ko ci politique yu baax ci suqali càmm ci biir réew mi. moo tax ci projet bii nga xam ne indi nañ ko projet bi ñu ànd ak président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay man mi ak doyen Habib ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo ngi ciy liggéey ngir gaaral ko askanu Sénégal li ñu ciy njëkk def te mu am ci solo mooy programme national de production fourragère. boo demee fii ba Louga mbaa fii ba Touba li fi nekk ci suuf ci àll lu ñu deful dara kenn xamul nu mu toll boo fi indee ndox danañu fee béy nawet béy fi noor béy fi plante yoo xam ne yii mooy dundal jur gi ba dootuñu soxla dara ñuy wër di toltolaan fa ñu nekk la leen di indil ñu lekk beneen bi nga xam ne danañ ko fi indi programme national itam bu ama am solo boo xam ne ci wàllu ginaar lay dem ak leneen dinañ fi indi beneen boo xam ni danañu fexe ba béykat yi ak sàmmkat yi ñu lëkkaloo bu béykat yi di produire plante fourragère yooyu nga xam ne moom la ñii di dunde ñële di leen produire la loolu itam loo xam ne moom la ñuy jokkalante loolu bu ñu ko indee ci biir réew mi fexe ba ndox mi doy marché yi disponible yàpp yi bu ñu paree ñu def li ñuy wax chaine de valeur maanaam ñoom bu ñu liggéeyee ba noppi ñu am fu ñu ko dem jaaye ji loolu jàpp yi ñu jël ko jël der bi bu ci nekk dootuñu sànni dara loolu yëpp danañ ko indi ay programme yu spécifique la yoo xam ni programme de production de fourrage la programme d' autosuffisance en lait ndax li ñuy jëndee meew ci àll bi ci digg bitim réew bari na te mën nañ ko produire fii bu fekkee jur gi suur nañu te lii tax jur gi suur na fii lañ koy béyee mu di plante fourragère yi ma lay wax muy dundal mu di mboq mu di leneen loo xam ne mën nañ ko boole pour def ci aliment de bétail loolu daal fii suuf ñàkku fi ay béykat ñàkkuñu fi liggéeykat ñàkku fi waaye li fi ñàkk mooy ay politique yu baax ay financement yu baax ak ay encadrement ak assistance technique te incha allah loolu dinañ ko si delloo si pour que kii di sàmm li muy sàmm amal ko njariñ moom ak njabootam ngir que mu mën cee gis boppam activité bi gën a jëm kanam comme ça càmm dellu si di gën a dundal sénégalais yi waaye di fi def koom-koom ci biir réew mi kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm képp kuy sàmmkat ñoo ngi lay encouragé ñoo ngi lay félicité liggéey bi metti na naaj wi tàng na bu ñu mënee jot yàpp foofu ca Dakar wala ci biir dëkk yi yéen ñi yéen a nekk ci naaj wi di ñu fi nekkal kon asalaamaaleykum yal na leen yàlla jàppale te am nañu yéene ci yéen dinañ ñëw taxawu leen ci projet bi ñu indi incha allah ci wàllu mbéy ak sàmm ak leneen lu jëm ci loolu ci biir réew mi jaaraama Hamadi ah, ah man jaaraama